jàppale ci yéen tey bu doon dañu nekk ci kii dañuy yóbbu cour d'assise mhm. cour d'assise buñ ko waxee lan moo fa nekk am na loolu mu junj kan moo def kan la jàppale kan la nëbb kan la àndal mhm. ba moom ci boppam mu ne bu doon yoon dañ koy yóbbu moom cour d'assise mhm. loolu am na loo xamee ni ci yenn réew gis nga jigéen ñi di waxee xëppante acide bi fi nekk nii. ci hmm. diggante ñaari leader politique waaw. il ñu yem ci kii wax na lii kii wax na lii diw tontu na lii. waaye la ñuy wax ci biir. lu tax féewloo am seen diggante. Euh, quelqu'un me disait hier. Barthélémy ni pas le premier bu féewloo ak Ousmane Sonko. d'autres me disent Ousmane Sonko dafay déranger te wax naa ko fii. dafay déranger les autres leaders pas am na ñoo xamee ne bëgg nañ ko bëgg boo xamee ne ci biir yeewi askan wi dañuy ànd ak moom parce que peut-être ñooñu sax candidature moom la ñuy jël choisir ko comme mu doon seen candidat am na ñoo xamee ne ñoom mu doon seen sago euh, du dem sax élection parce que arrangé wu leen mm-hmm. mu dem élection ndax ñoom dañuy minoriser peut-être dañ bu gañee dañ siy jàpp ne est-ce que dinañ am poste ministre wala poste ci gato bi dañ ci am suñu part mais li wóor mooy euh, Yewwi Askan Wi mm. euh, c'est à malin malin et demi moom waaye seen àndandoo bi am na ñoo xamee ni sincère wul ci pour dëgg li ma décision tribunal dafa génn rek gaa yi posté photo euh, Birame Souleye Diop ni bu Sonk ñëwul kii mooy ñëw suñu commande bi te loolu da ngay daf lay wóor ni waa Pastef ñoo def loolu parce que noppiwuñu pour consommer décision justice ci éliminer Ousmane Sonko moo bañ a bokk ci élection présidentielle Ibrahima bëgg naa nga nga leeral taxawaay ci ci euh, que xoolee ko ci élection. Mm-hmm. élection ci ñaar ñi kenn moo dem élection présidentielle ci ñaar ñi kenn moo ci àgg ci nekk troisième ci élection présidentielle. Mm-hmm. ñu dem sax ba ni mooy leader de l' parce que deuxième ba. Mm-hmm. dafa dem sayel génnee sax nee na maay ba de l'opposition mais jàpp nañu ni moom moo dem présidentiel Ousmane Sonko sur le plan poids politique diggante Mbagg ak Barthélémy Dias ci kaw ay élection yu dem nee nañu sax ni Barthélémy Dias bu tey gagné mairie Dakar donte nekkoon na député nekkoon maire de maire bu Sacré-Cœur yooyu mais dañu naan ni tey mairie bu mel ni bu Sénégal Dakar bu ko gagné ko ci Sonko ak ñooñam jox am na lu ko ci Déthié Fall ak ñooñam jox am na ko ci waa Askan Wi jox ba mu doon maire comme ñeneen maire yu ñuy wax ne ni bu doon ñoom kese kese kese duñu doon maire waaye la ànd ak ñeneen yu wallu ak ci yenn sax ñuy ànd ci wàllu législative mm-hmm. ak waa euh, waa Askan Wi moo tax ba ñu àgg fi ñu àgg donc poids c'est vrai ñaari mastodonte lañu ci di leen dem màgg ci wàllu politique. te demuñ ci bu doon kii dafa dem élection présidentielle deux mille vingt quatre Sonko Barthélemy samp na dem ne man candidat la deux mille vingt quatre bu boobaa leen di mën a àtte euh, comme on dit. mais nii nii nii ci àtte sur le plan politique da naan Sonko moom. donte jiitu ci politique. waaw. Mm-hmm. Lamine jeexale foofu. mbokk ak euh, li nga xamante moom mooy euh, génn bu bureau bu PASTEF ni ki démb la ñuy daal di jàkkaarloo taskatu xibaar yi ñoom nag nee nañu. décision maanaam dogal bi nga xamante